bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah guddik tey gii mooy guddik juróom-ñetteel ci koor gi ak naafilam ñaari rakka rek la bu ci ne fatiha benn yoon kul huwallahu ahadun fukki yoon ak ñaar ñaari rakka rakka bu ci ne fatiha benn yoon kul huwallahu ahadun fukki yoon ak ñaar wasalaamaaleykum wa rahmatullah لازلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد